kontaan naa trop pour yéen ak si jiital ndax su ma doom ngeen nekkul du first time ma ñëw fii waaye tey ñëw bi gën a ñu nekk na ñëw bi ma gën a nekk dafa toll àjjuma xam naa ni seen dër yi akura dëgg na ko sax ñu ngi sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal ñu jàmm ñaanal ñu doon ay gën di jullit وقتك سيدنا محمد بركة سيدنا محمد yang bingung kali yang nang kota yang kota lah yang yang menjadi yang menjadi yang yang gudu pak ini gudu yang ini ini yang am Terima kasih. Terima kasih. Thank you

dogal du bàyyi mukk doole bi ma am. dañ leen la bugga. yaa ngeen ko ne cee dugal loxo fu ma dem round the world ñoom ñoo may support ñoo may jàppale waaye ku lay jàppale nag ndimbal da cee fekk loxo borom boo amee war nga ko indil ndax teraanga bu weesoo la warul morom xale yi ku ci nekk suba mën na nekk njiitu réew ku ci nekk mën na nekk kii même bu ma teralul mën na teral